du ñu journaliste de waaye xam nañ wax traitement équitable de l'information te boo xoolee presse sénégalaise bi nu comporté woo jamono yu toll nii jéng na benn peeru jéng boo xam ne jégg def une traite euh, un traitement tendancieux de l'information mooy maanaam dafay indi ben par par parloo boo xam ne dafa fës trop làqatootul té luñuy wowe équilibre de l'information amatul té bu féké ñi nga xamné ñoo nek ci pouvoir bi bu ñu defee ay njombe yu rëy wala ñu wax ay njombe yu rëy ñoom dañ leen koy laxal wala leen koy woddal waaye il suffit Barthélemy Diaz wax wala Ousmane Sonko wax ñu jël traitement bi traité ko de façon tendancieuse ba nga xam ne day nekk un traitement à charge mooy maanaam day mel ni wax boobu day dugal day dugal ñenn ñi ba ci revue de presse beeg lépp mu nekk nag loo xam ne lu ñuy ñaawlu la parce que ñu nekk ci dëkk boo xam ne dañuy wax informé juste vrai mais tey bu ñu demee ba journaliste yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi organe de presse yi ñu leen moom ñëpp xam nañ ne bu nekkul nguur gi du ñu exister parce que tey lii di El Hadj Ndiaye su Youssou Ndour tey ku ci àndul ak nguur gi rek entreprise de presse dafay dafay nax saay mais loolu nag warul tax ba ñoom ñuy def loo xam ne ëllëg keneen bu fi nekkee seen entreprise day suux booy liggéey da ngay liggéey liggéey boo xam ne dafay juste et dafay équitable nga def li nga xam ne mooy sa liggéey yem ca comme ni ko Walfadjri di defee mais bu fekkee da ngay def traitement boo xam ne yow da jàppale ki fi nekk te ki fi nekk li suba mun na fay jógee loolu day tax ba yow keneen ku fi ñëwee tamit da nga am da ngay am problème te ñoom nag xalaatuñ ci loolu moo tax ñuy def liggéey boo xam ne wax dëgg yàlla nekkuloo loo xam ne dañu koy rafetlu parce nekk loo xam ne lu juste la lu dëggu la mais warul nekk loo xam ne luy lor nit la wala luy dugal ay nit la te gis nañ ko ci campagne campagne yi euh, locale bi am euh, par loo beeg euh, dafa fës boo jéggi dayoo.